saya takar Sénégal a ngi tàng de coon jër yow noo gisee ban affaire noonu tàngaay bi fi nekk gën naa dama laa laaj ni ngeen mu ngi tàng jër man la dafa tàng ngeen jër waaw waaw nga yokk ci jër bi jër xanaa politicien yi rek hmm. politicien ndax fii dëkku jàmm la hmm. mais da ngay gis ni boo amee philosophe di seetlu ni muy doxee da nga xam ne dafa tàng jër hmm. waaw moo waral ma Euh, Macky moo ko tàngal. Mhm. nu mu ko tàngalee. waaw moo ko tàngal ndax xam nga justice. Mhm. dafa war a tëddee nday ji seex. Mhm. jaaxaanaay waaw mais ni mu koy defee ku far ak moom di nga lekk di nga naan di nga wax lu la neex ku farul ak moom doo am jàmm loolu tamit xam nga baaxul ci réew. Ah, mais gars wax Sonko chaque fois mu génn chaque jour mu génn nekk ci internet bi. ay vingt mille personnes trente mille personnes di ko mhm. seetaan mu wax <laughs> la dëgg la xam nga politique de tout la mhm. xam nga da gis ni Sonko tamit ni muy def nii rek noonu la mën a def nga mhm. xamul benn mbokk ci justice su Sénégal ba pare tudd Sonko dëkk Casamance ak histoire waa Casamance ñu bari dañ koy jéem a koñe pour mu bañ a dem ak waxu dëgg gi muy wax xale yi tamit bëgg ko te yàlla tax réew bu waree dem ñaar ñëpp war a respecté amul président amul keneen parce que nit ñi ñoo leen fi teg